sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Moustapha ñu koy wax sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma ñii di ko wax sëriñ Cheikh Abdou damay taaw nag sax vraiment sori foofu dama ciy wax benn précision bu ndaw damay dégg léeg sax koo xam ne daanaka mën naa koo mag fokk wala boog bu naata ngoo ciy at ko maas ma dégg mu naan ko Cheikh Abdou Bali te dara waralu ko lu dul ndaje yi nañ ko jox daraja di ko yàlla jox tey wootu turam yi ngir yàlla ak jëm suñ Tuubaa ak fi ko yàlla boole bu mu koy woowee fëdd turam donte wàcce na boppam boole ñu ci boppam def na it muy citoyen bu modeste citoyen rek na jàpp boppam mais dafa am loolu ci boppam moom tey jii mënu koo dindi te mënu koo sang ba mu daj doonte dugg na ci làngu politique yi du tee sàmm na ji ko jooju kon léeg-léeg day rafet ndax nit it nu mu mën a mel lu mu bon am na njaboot te ñooñu it xar kanam bi nga koy xoolee day bokk ci ni ñuy jàpp kon léeg-léeg dañuy waat suñu bopp tuuti ci ni ñuy doxaleen moom. loolu it sëñ ma koy yedd kenn nag ndax ndajam ndox daje la te kenn ko ne sa xalaatu bopp la jënd waaye loolu seetlu naa ko tax du fii laa ko seetloo yàgg nañ koo sax kon dafay mel ne fi ma bëgg a waxee mooy maa ngi yàlla bu baax bi ma amee xalaatu ma teew mu am benn xalaat bu wóorumaa jox kàddoom loolu bu lu tuuti kon lii ak joxañ rek la ñuy wax sunu diggante ak yéen ñi sëriñ bi ñu leen di wax na leen yàlla leen yàlla dimbali ba di leen xiir ci li ngeen war a nekk waaye tey jataay bi am noo ma fi doon toogee mënoon naa fee xat loolu ndax biñ nee na sa kàddu man nga xalaat dox ma te bu ma fekkoon tey jii ñu géeg la ci kàddu yoo xam ne mën na si koo tontu wala mën a si cee wax dañuy am jafe-jafe waaye lépp li jëm ci yow lu rafet la ak lu baax ak lu yaatal kon sant nañ ci yàlla xanaa kay jafe-jafe yi mooy wax ci sa kàddu dana tuuti te nun dana jafe ndax nii nga ko jëfee yàlla dimbali la nga am jot ak matal ak tal ndax biñ lay dégg ci affaire rek léegi ba soriwul te gis nañ liggéey bi nga ci liggéey su ma dee waxal yàlla rek man du ma affaire waaye moom mii la doon ne mu ne ci ndax waat naa ne su fekkee mas na maa wotal Macky Sall moom la c'est la donte yàlla dogalu ko waaye xamoon naa ne bëggal na du ma ko xaj ndax lan li ma wax léegi nag moom lii ak moom loolu nag dama leen ci dolli conseil tuuti benn xalaat bu gàtt xañ na bu ma xalaat dafay am jëmm yooyu bu yàlla dogalee mbir bu naree dem suñu borom bu leen ci naree dimbali dafay am jëmm yooyu da leen cee tàbbale hmm. jëmm ji mel ne seen ji bu ne seen kanam war ngeen a santaat yàlla xamaat ne bu baax am ngeen ab keno bu nangoo yanu rek yëf yi moom mënut a diis ci moom waaye mën naa diis ci yéen ndax ndaje mi de jàpp mu ne mën naa yomb ci diggante fii ak jumaa ji ak fii te loolu moom xam na li ko ko may kon loolu la neen la Macky Sall it président Macky Sall bu fekkente ne am na lenn lu ñu koy xalaatal dañuy néew néew di citoyen ci dëkk bi takum jàngat mooy damay dégg yéene ji ak bëgg-bëggam ak fi mu fi mu bëgg a jëm ak yéen tax kenn ku ne ñaan nga yàlla li mu yor mu yokk waaye da ko suñu tubaab jox du jeex te bu ko doon def ci yéen fii bu subi bu subaa mu amaat waaye du tee ki tax mu di ko def dañ ne la yow da ngay dungoon seedes muy président Macky Sall